ñaanal waaw moom buy bëree booy bëree li muy yëg yow suy bëree lan ngay yëg no wax dëgg fa neex yàlla loolu dafa metti comme ni mu koy yëgee muy metti ci moom noonu la mettee si man surtout maa nag moom mu nekk raq lii mu nekk ci xale xamagu ci lu bari bokkul ak ñun ñi nga xam ne bëri nañ bëreeti bëreeti comprendre nga mais nag ay taalibe suñ Tuubaa lañ dañ koy ñaanal ngëneel li gën ci moom yàlla na ko suñu borom defal muy ndam moom lañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom taxaw ci barke suñ Tuubaa day mbapat si rek ndax xale la ci jàng bëre la toll bu jaree xeex mu xeex xale la moom li muy def da koy jàng de munagu ko mokkalagu ko nit nag booy jàng dara bu tari jotee da ñaan yàlla tari. wéet nga ak moom wax ak moom lan nga ko mu jéem. mooy xale nga defal yëfu xale man aw ma lu ma koy benn pression bu ma koy yéen ba conseil barke sëñ Bamba. mu ngi dem ma ngay topp rakk ji ma wax Ibrahima. dégg nga soq. xel bismillah def ko xale bu ndaw nga bul bëree benn pression lépp lu la sa xel bi jox ni boo ko defee di nga am ndam def ko yàlla na la Serigne Touba taxaw nga am ndam bu sedd kuy ci barke yonent bi champion nga jàmbaar nga rab ju sonn ci ay magam nga yàlla na la Serigne Touba taxaw bis defal yëfu bandi rek bu ragal dara nee na ko defal yëfu bandi ndeysaan yëpp na ko ne ko defal yëfu bandi xale nga am nga doole am nga tàlluwaay. toogal non non. da baaxum munul ñàkk micro baay. ay père baaxum ragalu dara ndeysaan xale baa ngi noonu boo xoolee xam ni macha allah lépp mbër a ci moom Ibrahima. ma ngay dem moom Sokh 2 wala laaleeg Petit Lo combat boo xamante ni ñëpp a koy xaar ndeysaan Sokh 2 dugg na jooy na Sokh jooy na ndeysaan mbokk ndey koy jur Sokh jooy ndab lu ne soq am na ko lan moo waral rakam daan soq di jooy lan moo xew soq jooy na ndeysaan dem na ci jumekaay bi lan moo tax nga jooy soq bis bu ne bëri nga ko bis bu ne toll na ko la waxoon xale bi ak la mu bëree ndeysaan ma ngay sëlmu soq lan moo waral jooy bi ndeysaan soq waay waa man ana Ibrahima ah, dama laa gisut di ndeysaan so lan la lu tooyee sa xol ba nga jooy lan la alhamdulilahi rabil alamin sant nañ yàlla bu baax gis nga lii duñu tax a wax lu ñu war ta wax li ma waxoon départ bi rek lay waxaat fi ma tegoon sama tànk laay tegaat ñii ay xale lañ dafa guñ dara ci làmb làmb xale lañ doon bëre te bu demee ba ay responsable ñu def leen ay responsable ni ñooy responsable gox yooyu ñu génn naan ay des na diw ak diw Franc daan ma Modou génn ni des na soq bu ndaw ak Petit Lo yàlla moo fi nekk sama digganteeg Franc yàlla moo bañ lépp luy may nit ndam nekkoon naa ci def naa ko suñu borom xañ ma ma dellu santaat yàlla suñu borom baax ñaari xale bu ñuy bëre war nañ ko mun a rafetal ñu bëgg a jël dër bi di ko dugal ci diggante booy Ameth loo su ma raq la duñ ma deñaat li ma waxoon démb départ ba tey fa laay teg sama tànk man taalibi suñ Bàmba laa dara mënu maa fëkk ba may wax lu ma war ta wax ci ay média ay affaire fu dul média sax lu ma fa wax lu ma war ta wax amul droit ñaanal doom waxuma bu mu ko ñaanal de ndax man sama raq laa doon ñaanal pour mu am ndam mais ni mu ko waxee moo rafetul moom champion la bëri na bis bu nekk ñàkk ko bëri na combat capital bu nekk ñàkk ko dañ ko encouragé dama bëreeg Franc ñàkk mu génn am nu mu communiqué kontaan reetaan ni des na soq bu ndaw ak Ameth loo te ñi ay booy lañ judduwuñu lambu xale la lañ doon bëre li wér te wóor mooy ñoom ñaar ñëpp sumay raq lañ suma raq laa doon ñaanal ndam suñu borom defal na ko ndam maa ngi santaat suñ Tuubaa bu baax santaat yàlla bu baax. ndaw day duggaat parcelle wala day génn. non non moom nekk fi pour parcelle nekku fi pour géejawaay xale la. képp ku ko lamb booleel day bëre ak moom bëriwul derbi bëriwul 100 pour cent bëriwul dara li muy bëre mooy làmb xale boppam lay bëreel carrière am lay defar vituwaar bi bokk na ci li yokk paa ay paa ci lamba mais mu nekk champion xale la ba tey fi mu nekkoon ci doon xale fa nekk ba tey yàlla na ko yàlla sutural yàlla na ko yàlla dolli suturaal di ñaar amet di ko encouragé bu amaatee beneen combat bu dul waa Pikine yàlla na ko suñu borom defal ndam ñoom ñëpp suñuy raq lañ nañ ko rafetal ba pare dama dégg keneen saa Touba keroog mu am ay discussion yu am fii mu toogaat tele mel ni kuy tëkku ni waa Pikine nañ ma xaar bu dimanche maa indi Ahmed Lo ni musta téye mbër ci loxo waa Pikine daan ko mu war a ñibbeeg moom tey daa ñëw sañ sa ba rafet def neeram bu baax ñëw ci digg géew bi indi Ahmed Lo soq bu ndaw daan bu tëdd ci kawam yàlla moo fi nekk te ñun ñëpp ay taalibe suñ Tuubaa lii métier la rek waruñu koo def ngir ay noonoo wala ay tëkkuwante yàlla rek moo fi nekk tëkku baaxul taxaw naan ay musuma ngem bu mbëri indi ko ci digg géew ñu jàpp loxoom yóbbu ko waa Pikine daan ko tey waa Pikine daan nañ ko yàlla moo confirmé man Sokh du ma yàlla du ma yónanti li ma mën mooy sama raq am combat ma xar sama tànk tubéy dugg fu nekk ñaan lu pour mu am ndam parce que day sonn ci man moom war na mën a ngem bu indi ko comme il faut mais toog ci média yi naan waa Pikine nañ ma xaar bu dimanche maa indi Ameth Lo nañ ñibbeeg gàcceem sama mbokku taalibe la du ma wax ci moom lenn lu ma war te wax ci moom yàlla na ko suñu borom defal jàmm mais gars yi nañuy defar communication yi te xam ni yàlla moo fi nekk jaajëf.